أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدودي عما سن أو فرضا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla sunu kàddu fekk ñépp ci jàmm ni ki ñu koy dagaanee itam mu nangul nu mbooleem xeeti jëf yoo xam ne noo ngi koy jëf ci weer wi ngir di ko ko jaamoo nangul nu ko te laqal nu ko it ci sunu bi dencukaay jëf def ko it muy dencukaay boo xam ni seytaane du ci amu yoon ba di ko yàq ginnaaw loolu ni nga xamee ne ubbee woon nañ ko suñu jataay yu njëkk yi nga xam ne amaloon nañ ko te ñu doon waxtaan bu baax a baax ci li nga xam ne mooy ngëneel yi weer wi làmbu te muy ngëneel yoo xam ni doo ko fekk ci wenn weer wudul moom moo taxoon ñu indi ci lennet ci ngëneel yi nga xam ne mi ngi ci biir weer wi waaye itam nu doon waxtaan ak yéen ci ginnaaw ba nu wooree ba noppi ngir mën a am njort lu rafet ci sunu koor ban takk-takk lañ ci mën a def ngir mën a am njort lu rafet ni sunu borom subhanahu wa taala nangul nanu suñu koor walla ndax bu nu àggul foofu it ndax sunu koor li ci suñu borom subhanahu wa taala dige ba tax mu digal ñu ko mooy yëll ak jaamu gi loola ndax jëlee nañ ci résultat ginnaaw bi nga xamee ne koor gi jàll na mbokk yi maa ngi leen ko doon juñ ju démb naa leen jaamu yàlla gu ngeen gis am na yilla yi ci ëpp bopp doonte ne am na jaamu yàlla yoo xam ni suñu borom dañu koo digal ñu di ko def di yan amul jenn yilla juñ ciy jànge moo tax suñu borom digal ñu ko loolu am na ci jaamu yàlla yi li ñuy wax jàpp masalan par exemple jàpp day loo xam ne dañ koy def obodi yatan rek waaye amul jenn joo xam ne mooy ji tax yàlla digal ñu ko ci misaalum li nu wax nañu ina salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli boo koy def say ñaaw teef yi nga doon jëf julli googu da koy effacé dalay lay ak moom inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli gi ci boppam mooy far say ñaaw teef yi nga doon def niki noonu lu mel ne joxe azaka itam wala saraxe am na yillay boppam joo xam ni moom lañu ci suñu boroom dig nañu bu ngeen ko dee def résultat boobu lay joxe ci alal ji mooy lan xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha nañuy jël ci seen alal di ca joxe ndax loolu day tax li des ci alal ji laab ba noppi ñoŋ loolu mbokk yi mooy yilla ji nga xam ne moom la sunu borom aj joxe azaka ak saraxe ak jël sa alal di ko dimbali nit te tomb boobu mooy bi nu gën a yitteel tey ci ndénkaan bi ñu leen doon wax démb waaye itam bokk yi koor gi nga xam ne moom lanu sunu borom subhanahu wa taala digal ñu di ko def am na la am na yëlla joo xam ni mooy ji ci aju ba boo koy def résultat boobu lay joxe su koor gi baaxe looloo tax ba mu nu waxee ca koor ba noppi nañu bu gën ko defee nag ca nam ware la'allakum tattaquna da ngeen ca jëlee ak ragal yàlla goo xam ni mooy li leen ciy toppee mbokk yi ma dañ loon wax démb bërki démb ni leen wala ci suñu jotaay yi mujj ni leen ragal yàlla googu dafay loo xam ni ginnaaw boo xamee ni nit am na ko dafa bokk ci yi nga xam ne wala bokk moom mooy li nga xam ne ci lañuy gënantee ngir nit mën a gën moroomam jaamam ci ragal yàlla la koy gënee kon loolu bokk na ci li tax koor gi gën a am importance mooy résultat bi muy joxe mooy li yàlla bëgg ci ñun ginnaaw bi mu ñu wàccee ci kaw suuf si nga xam ne ci lay jëlee kii teg ca kaw kële jël kële teg ca kaw ke ci ka ca des loolu mooy ragal yàlla inna akramakum indallahi atqaakum wala wax ñu suñu borom subhanahu wa taala ci alquranul karim ne ñu ki gën ci yéen mooy ki nga xam ni moo gën ragal yàlla ci yéen ki gën a ragal yàlla ci yéen mooy ki gën ci yéen kon ragal yàlla ragal yàlla googu nga xam ne moom la sunu borom bëgg ci ñun ba tax mu diggal nu nu jaamu ko ragal yàlla googu la nit ki di jële ci koor gi bu fekkente ne defe na ko sunu borom na ko borom bëggee subhanahu wa taala kon ragal yàlla googu itam wax naa leen léegi ni ci la nit ku nekk di gëne moroomam inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne moo gën a ragal yàlla ci yéen junjoon naa leen nag ni leen ragal yàlla bu ñu ko dee wax mooy sóor yàlla sóoraale yàlla ci say wax bàyyi xel yàlla ci say wax bàyyi xel yàlla ci say jëf bàyyi xel yàlla ci saw melo bàyyi xel yàlla ci sa comportement boo wéetee ak boo wéttalikoo nga xam ne bu la wóoree ne kenn gisu la sunu borom subhanahu wa taala moom moo la bind te innahu bi kulli mu muhitun mu ngi gis lépp te mi ngi xam lépp loolu nag mooy résultat bi nga xam ne moom la war a amee ci koor gi nga xam ne moom la ñu sunu borom yan ci bu nu xamee ne sellal nan ko ca nam ko bëggee euh, mu mel ne nag xëy na nun kon ci jamono bii dafa am beneen nattukaay boo xam ne moom la ñuy natte gënante gi ci suñu biir te nattukaay googu ba jiitu daanaka mooy askan jàpp nañ ne ku ci gën nit da koy gën ndax danga bokk ci askan sàngam loolu nag lu am solo la ndax sunu borom subhaanahu wa taala ku mës yónni dalaa tànnal askan wa ngay bokk alayhi salaatu bi ko sunu borom di yebal daf koo tànnal askan wi muy bokk ndax bëggul ku ko xasal nitam moom yàlla bëggul ku ko xasal nitam mbaa nga koy xeebal ab yonentam mbaa nga koy waxal lu ñaaw ci loo xam ni ci askanam lay nekk mbaa lu ko nuru nga xam ne buñ ko xoolee dañ koy gis ci askan wi suñu boroom loolu moo ko gën a bañ ñépp moo tax du ko def waaye nag askan woow yi mbokk yi li muy jariñ ci nit ki mooy am tos la am tos am tos mooy nun bu njëkk ba nu nekkee ca daara yi ca àll ba daan jàng di bayi tool yi dañ daan ñëw ci gétt gi jël ci li nga xam ne mooy neefarey jur gi xar yeeg mbaam yeeg yooyu sëf ko ci saret bi yóbbu ko ca tool ya bu ñu demee fi nu bëgg bay déwén dañ ko fay tàmbalee sotti di ko tos di ko tos nga xam ne bu fa taw bi ñëwee wàcc ci kawam mu gën a jaxasoo ak suuf si ngelaw li gën koo jaxasee ak suuf si fi ak weer way dellu si déwén nu man koo ruuj bay ko ndax day fekk suuf si saf sàpp suuf nag boo ko tosee ba mu saf soo ca bayee te sàggane mbay ma fonk mbay ma sàggane woo ko yaay gën a naat ak gàncax yaay gën le ak gàncax waaye nag saa boo sàgganee suuf si ba bayoo ko nag yaay ëppum ñax ñëpp moom yaay ëppum njëmm ñëpp kon li nu jàpp ne ci la ñëpp di gënantee mooy wàllum askan yooyu loolu mooy njariñ li loolu mooy avantage bi nga xam ne moo ci am mooy nit ki su bëggee baax da koy yomb ci askanam woowu waaye tekkiwul ne da nga cay bokk rek da nga gën ñëpp ndax danga bokk ca famille sàngam booba yàlla sunu borom subhanahu wa taala doxewul noonu te njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam doxewul noonu te sunu sëriñ si nga xam ne itam noonu toqe ci diine teg ñu ci yoon wi itam jàngaloon ñu loolu sëriñ Tuubaa Seexul Xadim bi mu ñuy wax li nit ñi di gënante ak li ñuy rawante la mun wax mooy waalam bi annama tafawutil wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira na nga xam ne wuuteeg mbindeef yi day fi nekk du ci aw askan du ca diway sa baay du ca diway sa maam waaye wuuteeg mbindeef yi mi ngi nekk ci xam-xam bu rafet bu nekk ci ñoom ak jëfe xam-xam bi te mu ànd ki teggin bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fudila laa bintisaabihi li man qad yatala mooy ci xam-xam ak ci diine ci la nit ñi di gënante ci la ñuy rawante ci lañuy ñuy wuute mu ne ñu nag laa bintisaabihi li man xadiantala kuy gën a kawe sa moroom du caagi ne da ngay gën a gën sa moroom ndax askan wa nga bokk mbaa di way sa maam waaye danga koy gën ngir ragal yàlla ngay nekk ci yow danga koy gën ngir jëfe xam-xam bi nekk ci yow loolu bokk yi bu nu ko talaatee rek ca nahju xadaa ilxaaj ba ñuy jàng ay teggin lamu mu nu waxoon mooy wax wa huwa alladi jaala xusna al adabi yuxfi jahalatan wa qubhan nasabi suñu borom subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ni moo dogal moom yàlla képp koo xam ne am ngay teggin te rafet la ko lool boo bokkee ci askan wu bon sax sa teggin yu rafet yooyee day tax nit ñi nëbbal la sa askan woobee ak sa ñaawte fi ñu xamoon ci yéen bu njëkk ndax lan ñëpp dañ lay ruse teggin yu rafet yi nga am ñëpp dañ lay ruse yar bi nekk ci yow ñëpp dañ lay ruse teggin yi nekk ci yow waaye nag safaan bi itam al aksu bil aksi safaan bi itam day am ci képp koo xam ne lu saw askan baax baax baax même boo amul dara ci ay teggi nit mën naa sabab nit sosal la wax la lu ñaaw mbaa mu xuloo ak yow wax la lu ñaaw te doo ci mën dara ndax yaruwoo suñ bay jaxate ne woon na amub yaray tax ñu fab nit teg ca kaw di ko naw ñàkkub yaray tax ñu àjjee nit ca kaw di ko caw amub yaray tax ñu fab nit teg ca kaw di ko naw ñàkku ñàkkub yaray tax ñu àjjee nit ca kaw di ko caw waaw loolu lu mat a bàyyi xel la bokk yi kon koor gi résultat bi muy joxe mooy ragal yàlla googu nga xam ne lépp looy defati di nga ci sóor yàlla biir weeru koor wi ni ngay sóoree yàlla ci lépp waxoon naa leen ko ba wéet wéet ak lekk wéet naan wéet ak lépp kenn gisu la ku dul yàlla nga mën cee lekk ba suur te kenn du ko xam nga teg ne lekk gi lànk bañ cee lekk ndax lan xam ne yàlla mi ngi lay gis boo gisul yàlla yi yow yàllaa ngi lay gis te moo la digal sa koor gi nga war bokk yi ragal yàlla dëgg bu saxee ci yow noonu lay mel kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci weer wi lu mat a góor góorgóorlu la sellal ko ngir nga mën a am résultat boobu ginnaaw boo xamee ne euh, defe nga ko ni ko sunu borom subhanahu wa taala digle mu mel na nag waxoon naa leen ci ndénkaan bi nga xam ne moom laa leen doon wax waxte lépp jëm ci weeru koor wi di waxe yonente bi alayhi salaatu wasalaam ju Sëriñ Tuubaa dajale ci ndénkaan bu am solo boobu yi ma doon junju te junjoon ci ñetti tomb yu ci nekk yoo xam ne benn bu ci nekk laaj na ñu taxaw ci firim fàcce ko ba mu gën a yaatu gën a leer benn bi mooy weeru koor ni mu nekkee weeru ndimbal weeru jëf lu baax beneen tomb ba di weeru koor ni mu nekkee weer woo xam ne tatlubul mar'atu rida zawjiha mar'atu fiihi rida zawjiha jigéen ju nekk day war ci moom mu gën a góorlu lépp lu ko doon raw ci diggam ak boroom këram mu góor góorlu ci weer wi ngir sàkku ci ngërëmam tomb bu am solo la boo xam ne mat naa taxaw ndax jamono laaj na ko itam waaye beneen tomb bu am solo bi nga xam ne itam mat na cee bàyyi xel mooy weer la woo xam ne shahru birrul waalidayni la weer la woo xam ne weeru sàkku ngërëmul sa ñaari jur la weeru sàkku ngërëmul sa ñaari jur mbokk yi weeru xur alquran la yooyu yu ci nekk danañ ko def ci ay tomb fexe ko tënk ca nu gën a gàtte ba nu gën koo mën a jariñoo insha allahu taala mbokk yi maa ngi leen doon wax ni leen weeru koor weeru dimbalante la suñu borom subhanahu wa taala sant ñu ci alquranul karim ne ñu wa taa wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan yéen jullit yi ci seen biir nangeen dimbalante ci ak baax na ngeen dimbalante ci ragal yàlla na ngeen dimbalante ci aw yiw loolu nag li ci dugg te laxasu ci moo bari dimbalante googu dafa war diggante jullit ak moroomam ci jamono bu nekk waaye dafa gënee gën a baaxee ci weeru koor dafa gënee gën a baaxe ci weeru koor wi ndax tiyaaba ci lay gën a bare suñu borom dala koy fulal te itam way aaja wooye ci lañ koy gën a soxla rawatina jamono bii ñu toll ak fii jamono tollu ci réew mi ab nattu wàcc ci àdduna bi mu metti ci ñépp waaye di gën a metti ci néew doole yi te senegal li ëpp ci population bi di ay néew doole li ñuy wax faqiir mooy li ëpp ci population senegal way néew doole yooyu nag weer wi di seenu weer ñoom ci képp koo xam ne bëgg ngaa jëf lu baax sàkku ci ngërëmul sa borom comme ni ñu ko alxuraan digalee mbokk yi alxuraan wax na lu baree baree baree bari ci jël ndimbal jëmale ko ci néew ju doole ji waaye soññ ci itam joxe ci ay exemple wane itam ne ñu ragal yàlla ñi ma doon wax léegi nga xam ne bu seen koor baaxee daf leen di rendre ñu doon ñu ragal yàlla ñooñu munta ñàkk ci ñoom ñu jikkowoo di joxe ak di partager seen alal ak di ci dimbale ñi ñàkk te ajewoo ko ndax gis nañ ci alxuraan fu sunu borom di melale ñi nga xam ne ñoo ko ragal ñi nga xam ne ñoo koy sóor ci seeni jëf ñi nga xam ne ñoo koy sóor ci seeni wax saa su nekk seen i jikko daf tey bokk mooy lan jël seeni alal di ko dimbalee te yàlla rek tax bu nu demee ci njëlbeenu suuratul baqara rek loolu lañ fay fekk suñu borom subhaanahu wa taala di wax ni alif lam mim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin alladina yuminuuna bil xay bil xaybi wa yuqimuuna salaata waaye wa mimma razaqnahum yunfiquuna waaw boobu téere nga xam ne amul sikk sàkk ci ne amul sikk ci ne ak njub la fees del ñeel ñépp ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla mu mel ne koo xam ne dañ na ko ñi ragal yàlla ñooy ñan mu ne alladina yuqimuuna salaata ñooñu nga xam ne fu ñu toll dañuy taxawal julli ndax asalaatu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diina wa man diina julli mooy keno benn ci kenoy lislaam yi nga xam ne moo yanu diine yi alayhi salaatu wasalaam nañu képp koo xam ne taxawal nga julli di ko dundal ci anam ya mu ware mel nga ne ko dundal diina jëpp waaye képp koo xam ne mabb nga julli googu dundaloo ko mel nga ne ko mabbu diine ji mbokk yi julli moomu ni mu amee solo bokk ci melo yi nga xam ne ñi ragal yàlla sunu borom da leen koo melal waaye daf ci am beneen jikko boo xam ne mooy bi nu yitteel tey nun mooy wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna leneen yàlla dimbali leneen yàlla xéewale ci wërsëg mu néew mu bari ña nga cay sàkk di jox ña ko aajowoo ay yu baree bari yoo xam ne itam suñu borom noonu la cay melalee ci ragal yàlla am na ca benn boo xam ne saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqina allazina yunfiquuna fi sarraai wa darraai alladina yunfiquuna fi sarraai wa darraai am na ñoo xam ni ci lu feeñ ak ci lu nëbbu fu nu toll ñu ngay jël seen alal di ko delloo ci jaam ñi nga xam ni ñoo ko aajowoo ñu yàlla daf leen tagg daf leen sant daf leen gërëm ci taxawaay boobu nga xam ne ñu ngi koy taxawu jaamam ñi ndax nit ñi itam alal yàlla lañ képp ku leen dimbali loo def ci ñoom yàlla nga ko defal allahu fi awnil abdi maa maadaama al du fi awni aqihi yàlla du mas a jug ci di dimbale nit ki ci ay yitteem suñu borom du mas a jug ci di dimbale nit ki ci ay aajoom li fi ak nit ki ci boppam mi ngi ci yittey moroomam jaamam mi ngi ci yittey moroomam nitam di ko dimbali ak di ko taxaw ci li nga xam ne moom la ko tane suñu borom nee na li fi ak nit ki mi ngi dimbali mbokkam rek man yàlla du ma jug mukk ci di ko dimbali moom kon di dimbale nit ñi di leen jàppale ci sa alal dafa bokk ci yi nga xam ne day tax suñu borom subhanahu wa taala jëlal la yow sa mbir amee di la dimbali ci lépp loo xam ne dugg nga ci loolu bokk yi lu am solo la te lu mat a bàyyi xel la ñu mën koo tëje ci point boobu ci beneen aaya boo xam ne suñu borom daf ciy wax di melal ñi nga xam ni ñoo gëm yàlla bu ñu déggee alxuraan mbaa ñu dégg turu yàlla naka lay mel ci ñoom mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mooy ñi nga xam ne ida dukkira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ñi nga xam ne bu nu déggee alquran seeni xol day yëngu seeni pas-pas ci yàlla di yokk ñi nga xam ne bu ñu déggee turu suñu borom subhanahu wa taala seeni pas-pas day feddaliku day yeesaat ñuy gën a gëm yàlla di gën a doyloo suñu borom di gën a wakkilu ci suñu borom ñooñu alxuraan daf leen a tagg bi mu leen di melal nag jikko yu ñu meloo meloo ngir ku leen gis xàmmee leen daf caa bokk mooy lan foo leen fekk seen alal dañ koy jël di ca dimbali way ñàkk yi bokk yi maa ngi leen doon wax ni leen dimbale ñi ñàkk ci at mépp la baax waaye ci weeru koor wii la ëpp tiyaaba ci la gënee fii jamono toll nag ci réew mi di jamono boo xam ne nattu agsi na ci réew mi natt bi tax na ay mesures am yoo xam ni ñi nga xam ne ñooy way néew doole yi nga xam ne dañ daan xëy ne kafe seen kër wutib añ doo ko indi ci kër gi ñu mën a togg ñooñu seen mbir day gën a metti ndax mbokk yi xam ngeen ne sur le plan économique moom tawat ji tax na waxuma la ci réew mi waaye fépp la lépp taxawee fépp la lépp taxawee waaye nag bu lépp taxawee fépp ci àdduna bi day gën a metti ci ñi nga xam ne ñooy way ñàkk yi les pays pauvres ñooy ciy gën a sonn ñoo ciy ëpp ay jafe-jafe parce que pays sous développé moo mel noonu waaye mbokk yi ci biir pays sous développé boobu nga xam ne mel ne ni Sénégal par exemple fi muy gën a mettewaate ci ñoom mooy ñi ci gën a ñàkk ñoo ciy gën a néew ay pexe ñoo ciy gën a néew ak am ñoo ciy gën a jaaxle ñoo ciy gën a jaxasoo ndax mbooleem fu ñu daan amee ak mbooleem lu leen daan may rek li ëpp ci loola day taxaw ba duñ ca mën a joteeti mbokk yi koo xam ne ñetti doomi pend naar yi daf laa të naka jekk bu dara xewut lépp di dox nga mën a am añ boo jox sa njaboot reer boo jox sa njaboot ndékki jox sa njaboot ñett yi naka jekk jafe na leen ñoom ñi ñàkk jafe na woy ñakk yi bu ci natt bu mel nii dolli ko ba ñu am heure bu ñu war a génn ak heure bu ñu war a dugg loolu dina metti ci ñoom bokk yi loolu moo tax tomb bii ma di ci taxaw ngir am solo gu mu am solo ci weer wi waaye itam nu gën koo bàyyi xel ci jamono ndax jamono ci boppam moo nu ko bàyyiloo xel noonu Sénégal day réew moo xam ne population bi ñi ci ëpp dañoo ñàkk ndax nga gis ci koo xam ne sax dajale ne fukki dépense yu bokku buum lu jafe la moo tax réew mu neex a jaamoo yàlla la réew mu neex a jaamoo yàlla mooy Sénégal bari waa boroom alal boo xam ne day mën naa am yàlla ci lu gaaw a gaaw ndax joxe ñam joxe ñam di ko jox ñi ko ñàkk ak ñi ko aaje woo dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a gaaw ci eggale nit ci suñu borom subhanahu wa taala waaye nga di ko def itam ngir jëmmi suñu borom wa yutximuuna taama ala xubbihi miskinan wa man wa asira di jël sa alal di ci togg ay ñam ci weer wi xool ñi nga xam ne bir na la ne ñii am nañ jafe-jafe luñ lekk nga di leen ko yët mbokk yi loolu day sabab ngërëmul sunu borom ci lu gaaw a gaaw day eggale nit ki di ko marale ak boromam ci lu gaaw a gaaw su boobaa nag innama nutimukum li wajhillahi laa nuridu minkum jazaan wala sukura wala shukura dañ koy def rek ngir jëmbi yàlla te xaar ci jërëjëfi sunu borom bi bañ cee xaar jërëjëfi nit ki mbokk yi réew mii nu toll damay faral di wax ni képp koo xam ne yilif nga ay nit moo xam da nga leen a yilif ci diine moo xam da nga leen a yilif ci aada tane leen ci seeni jafe-jafe war leen mën a dimbali dimbaliwoo leen bu ñuy lim seeni kilifa buñ la ca boolewut bul mer ngir mu gën a leer bépp doomu aadama boo xam ne yaa ko tane war koo mën a dimbali war koo mën a taxawu taxawu woo ko dimbali woo ko jàppale woo ko gis ko muy sonn buy lim ay kilifaam mane ne bu la ca boolewul bul gis sa bopp bu la boolewul ci ay kilifaam bul gis sa bopp ndax yow jëfagoo la la war ci moom mu am beneen tomb bu am solo bu ci topp mooy képp koo xam ne gis nga woy ñàkk yi tane ko war koo mën a dimbali dimbali woo ko ba mu jaaxle sol aw dàllam ñëw ci yow diis la soxlaam en tant que as gor ak wax soxla nit ni mu mettee en tant que as gor mu ñëw diis la soxlaam ngir bëgg nga dimbali ko ci boo yëkkatee sa alal dimbali ko ba noppi jërul ngay xaar ci moom jërëjëf ndax bu la ko waxutit xamal ne njëgu dignitéem nga ko jox yow képp koo xam ne tane nga ko war koo mën a dimbali dimbali woo ko moom mu jug ñëw ci yow sàkku ndimbal ci yow bul xaar ci moom jërëjëf ndax la nga ko jox njëgu dignitéem la mbokk yi tàllal loxo kenn bëgg ko as su bëgg tàllal loxo amut waaye jaaxle moo koy tax a def ak ñàkk pexe benn borom kër bu mën a xëy di xool sax njaboot ci ay bët joxoo leen ñu añ joxoo leen ñu reer joxoo leen ñu ndekki amut benn boroom kër rànkiñeewul noonu ci ak njabootam mbokk yi loolu lu mat a bàyyi xel la ci jafe ci jamono ji ñu toll rawatina ci réew mii nu jaamu yàlla ci ñii nga xam ni ay way ñàkk lañ te mënuñoo wax seen bopp mënuñoo tàllal loxo di dem fenn looloo tax suñu borom subhanahu wa bi mu ñuy digal saraxe di ñu digal joxe asaka lam ñu njëkk a wax daf ñoo di daf ñoo décriral catégorie yi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakin ka njëkk mooy kan faqir la suñu borom digal bu ñuy joxee asaka ñu di ko jox faqir nag mooy mbir mi bokk yi faqir mën naa amub kat-kat di ko dawal faqir bi la yàlla joxloo sa asaka mën naa am R plus 1 mbaa R plus 2 mbaa R bi la yàlla joxloo sa asaka mën nga koy gis muy sol mbub mu rafet ndax faqir mooy kan mooy ki nga xam ne même bu xëyee am 10 million bu defee ay besoin mu jeexal koo xam ne li mu am bu ci joxe ay dépense def ay besoin day jeexal tàkk kooku faqir la foo foo bëggee joxe asaka boo ko gisee jox ko ko bu dee yéen a bokk koñ bu dee yéen bokk koñ te nga bëgg a joxe asaka asaka ja ngay joxe jox ko ko yeyoo na ko ndax ku mel noonu lu ci baree bari foo ko fekk du doonub ñaankat du doon koo xam ne day ñëw di gaaral kenn soxlaam mbokk yi nanu fàttaliku way ñàkk yi te delluwaat ci ñoom rawatina ci weer wi nga xam ne ci lañ toll ndax xëy yendoo ab xiif ba ngoon jot ngay xool sa njaboot amoo ndogu la leen jox loola lu metti la kenn ku nekk ñun bu ko nattoon ci boppam dina xam ne lu méttee métti la kon loolu nañ ko bàyyiwaat xel bu baax mbokk yi gestuwaat bu baax gor yi nga xam ni mënuñoo dem fenn di diis seen bopp kenn loolu nag alxuraanul karim ci boppam nun moonu ci soññ alxuraan moo nu xamal bu nu jëlee suñu alal di ko def ci ñoom lan la ñuy jural ak résultat bi lan lay doon mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi kamasali xabbatin anbatat sab'u sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu xabba wallahu yudaa'ifu liman yashaa'u wallahu waasi'un alimun yàlla nee na ci alxuraan yow mi nga xam ne dangaa jël sa alal di ko joxe da ngaa jël sa alal di ci dimbali ki ko aajowoo na nga xam ne dafa mel ne day nga jël benn pepp nawet bi ñu nga faraasu ko bi nawet bi jubsee nga faraasu ko dugub dañ koy faraasu bu nawet jubsee bi nga ko faraasoo nawet bi ñëw ndox mi taw ci kawam bi mu tawee ci kawam mu sax ak gattax gattax googu sax ay mbool mbool yooyu benn mbool bu ci nekk def téeméeri peppu ci biiram kamasali xabbatin anbatat bii la Euh, gub wu ci nekk wala gattax gu ci nekk am na juróom-ñaari mbool fii suñ sunbulatin mi atu xabba mbool bu ci nekk làq na lu ëpp téeméeri mbool téeméeri dugub ci biir te benn pepp dugub moo la may lii yàlla bi muy bi muy santaane ñu jël suñuy alal di ko def ci way ñàkk yi nii la ñu ko waxee kon benn dërëm boo jël def ko ci ki ñàkk sunu borom dana la ko fulal ndax lam ca teg mooy lan wallaahu yudaa'ifu liman yasaaw man nag may ful ni ma neex kon li gën a tuuti maanaam au moins li ngay am boo jëlee sa alal dimbale ci nit ki ki ñàkk rawatina ci weeru koor yi au moins résultat ba muy njëkk a joxe mooy lan wenn gattax woo xam ne sax na juróom-ñaari mbool juróom-ñaari mbool yooyu mbool wu ci nekk sax téeméeri pepp ci benn pepp nga ci jiwoon mbokk yi bi nu yàlla di xemmem loo ndimbal ci jaamam ñi fii la ko tàmbalee muy lu am solo loo xam ni lu mat a bàyyi xel la ci wàll googu alayhi salaatu wasalaam nee na ma min yawmin amul benn bis boo xam ni nit ki dina xëy lu dul ne ñaari malaayika dana ñëw tiim ko benn malaayika mi dana am sunu borom allahuma aati mumsikan allahuma aati munfiqan xalafan meneen malaayika ma ne allahuma aati mumsikan talafan kee day ñaan yàlla ne ko yow sama borom borom doole ji nga xam ne mi ngi jël alalam di ci dimbale ñi ñàkk maa ngi lay ñaan nga wuutalal ko lépp loo xam ne génne na ko def ko ci ñi ñàkk nga wuutalal ko leneen lu gën loola wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu yàlla nee na lépp loo xam ne génnee ngeen ko ci seen poos dimbalee ko ñi ñàkk man yàlla maa leen koy wuutalal ci seen poos lu gën loolu laa leen di jox itam wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu saa bu ñu dépensé sunu alal ngir jëmmi yàlla rek tax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala moom mooy jëlaat lu gën lañ depanse joxaat ñu ko ndax alal moom boo koy seet ci am amu nit ki ak wër wërsëgam day mel ne alal ji ne fii rangaloo ci loxo bi ba ci kaw li nekk ci catu loxo bi bu génnut li ci ginnaawam du ñëw li ci ginnaawam su génnul la ca topp du ñëw la ca topp su génnul li ne fii du ñëw ba ca la ca kaw kon li ne ci sa loxo faw ak sa poos te jàppandi faw nga di ci dimbali ñi ñàkk ngir weneen wërsëg wi nga xam ne moo ne ci ginnaaw te loola te koo ñëw loola mooy tax mu mën a agsi saa boo xamee ne génn na ci yow kon mbokk yi loolu lu am solo la te lu mat a bàyyi xel la nan ko bàyyi xel bu baax a baax euh, kon xadis boobu Abu Hurayrata moo ko solo ci yeneente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bis bu yàlla sàkk nit ki su xëyee ñaari malaayika yi danañ ñëw kenn ki ñaan yàlla ne ko yàlla yow mi nga xam ni yaay aji joxe ñi kii nga xam ne dafa jël alalam dépensé ko ngir sa jëmm rek tax ak sàkku sa ngërëm ngal la wuutalal ko leneen lu gën li mu dépensé ci alalam keneen ki ci des ne ko yàlla yow mi nga xam ne yaa moom ñëpp moom lépp kii nga wërsëgale mu jël alalam war cee dimbali ñi ñàkk lànk bañ koo def yàlla na nga tàbbal ci biir alalam ji lu koy yàq ñaanu malaayika nag suñu borom subhanahu wa taala du ko delloo kon mbokk yi loolu lu mat a góorlu la lu mat a def la itam li tax itam faqir yooyu may wax ne ñoom lañu war a jiital ci li nga xam ne moom la ñuy def ci ndimbal yi ndax mënuñoo wax seen bopp alxuraan ci boppam wax nañu xeetu doomu aadama yooyu nga xam ne ay niti kersa la ñuy doon am na ñooñ boo génnee ci mbedd mi buñ la karee di la wax seen soxla du ñu bëgg ñaar ak ñett am ci yoon te magum jëmm nag mu dem bay dikk ci moroomum gorom di ko dee soxlaam jàpp naa ne ku jaaxle la waaw moo tax suñu boroom nañu ñu lil fuqaraa allazina uxsiru fi sabilillahi la yastatiuna darban fil ardi waaye nag yaxsabuhumul jaahilu agniyaa an min attaafufi taarifuhum bi simeehum laa yasaluuna naasa ilxaafa am na ñu ñàkk ñoo xam ne mënuñoo génn di tàll seen loxo kenn alxuraan nee na ñooñu da ngeen leen gestu te di leen bàyyi xel alxuraan ne ñu ki nga xam ne xamu leen sax bu leen gisee day jàpp ne ñiy jeexaluñ dara ndax danañ fexe ba sol lu set xool seen mbubb yi gën a rafet te seeni mbubb ñu sol ko te buñ génnee duñ wan kenn ne ñun dañoo ñàkk ab añ mbaa dañoo ñàkk ab reer mbaa dañoo ñàkk ab ab ab ndékki mbaa dañoo ñàkk ndogu alxuraan ne ñu ñooñu seen comportement bi ñuy amee ndax yiwe gi nekk ci ñoom mooy tax ku xamul lu bari da ngay jàpp ne jeexaluñ dara waaye fekk ñoom aaje woon nañ dimbal yaxsabuhumul jaahilu jaahilu agniyaa min at-ta'affufi asgoor su am fayde kay ñàkkam jibaam na ko yëg waaye jëmmam bu mu ko yëg bu muy toroxlooti na ko sëñ bay jaxate waxte waxe woon as gor su am fayda as gor su am fayda kay ñàkkam jibaam na ko yëg waaye jëmmam bu mu ko yëg bu muy toroxlooti loolu itam képp ku aajewoo ku la dimbali wara nga koo bàyyi xel waaye jàpp naa ne rek képp koo xam ne dem nga ba génn di tàllal sa loxo ngir wut loo lekk kooku ay pexe ma jeex mbokk yi ñooñu nañ leen bàyyi xel bu baax te xam ne ci société bi lañu bokk te itam mënees naa am yàlla ci ñoom waaye itam ndimbal loolu boo koy joxee bul ko def itam mel ne koo xam ne dangay ngay ngistan loolu mat na cee bàyyi xel am na ñoo xam ni bari na lool ci réew mi seen alal li ñuy wax muuma du ko lekk maanaam boo deful ni communicateur traditionnel am di def maanaam tagg ay maamam ca kaw man koo kañal ay maamam man koo waxal ay baax baaxam moom doo lekk xaalisam ñooñu mooy ñi nga xam ne seen xaalis muuma du ko lekk ñooñu nag as ngor dëgg du mën a lekk seen xaalis ndax lanuy bëgg mooy ku leen tagg ku leen kañ ku leen waxal seeni baax baax ku leen waxal baax baaxi seeni maam ñu doog a mën a jël ca la ñu am jox la ñooñu nag nanu xam ne lanuy def kalladi yunfiqu maalahu ria annaasi mooy ñi nga xam ne ñoom la alquran di wax nii dañuy jël seen alal ñoom toujours di ko joxe ci di ko joxe ci nit ñi waaye buñ koy joxe lañ cey jiital mooy lan ngistal wane ne diw may naa ko nangam diw maa ko jàppale ci nangam diw bu du toon mën a du am nangam loolu bokk yi kuy jël sa alal ku ne di ko joxe war nga koo bàyyi xel mu bañ laa topp ndax joxe sa alal sa alal dem sa doolee dem ndax yaa ci defoon sa doole baamal ko sa bopp ba noppi amoo ca yàlla loolu mag mu ne war na koo moytu borom xel bu ne war naa moytu jël alalam joxe ko ba noppi amu ca yàlla amu ca ngërëmul yonente bi alayhi salaatu wasalaam te loolu la waral mooy lan li alquran doon wax naan ñi nga xam ne dañuy jël seen alal masalu lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi wala boog fi suñu borom di wax ni laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa kalladi yunfiqu maalahu a annaasi bu leen jël seen alal mel ne nga jël say million liggéey ko ba am ko kos birin almet teg ci mu tàkk jëppet kooku mooy ki nga xam ni jël na alalam di ci dimbale nit waaye ba mu koy dimbalee mënu koo dimbali ci biirub néeg mënu koo dimbale ci biirub saalam am na ñoo xam ne ci mbedd rek lañ mën a dimbalee loolu nag lu mat a bàyyi xel la bokk yi ndax jël sa alal joxe ko ñàkk sa alal amoo ci yàlla amoo ci yonente bi en général ñu mel noonu saa boo demee ba mënatoo defal la nga leen defaloon day mel ne yàlla day rocc sirru respect bi nekkoon ci seen diggante lañ la daan wax ci lu baax dootuñu la ko waxati au contraire mën nañoo wëlbatiku di la wax lu ñaaw ndax yow ci sa bopp la nga doon def defoo ko woon ngir yàlla te ñoom itam xam nañ ne li nga doon def defoo ko ngir yàlla moo tax lu mel noonu foo ko fekk day wëlbatiku xeeti wax yu sew ak xeeti wax yu ñaaw rek moo cay toppaa ginnaaw ba mbokk yi loolu lu mat bàyyi xel la te nan ko bàyyi xel bu baax a baax kon nanu jël sunu alal di ca dimbali ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo lii may wax itam bu kenn jàpp ne borom alal yi doo nga tax nuy wax déedéet yow mi am ñaar téeméer sa ñaar téeméer yi xam nga ne mënoo lekk lépp boo lekkee téeméer ba jëlal benn téeméer ba mbaa juróom fukk ba nga xool koo xam ne wër na leen yaa ko tane nga dimbalee ko ko wutum tuyaa bu ñëpp la war def lu baax ñëpp la war ni mu waree borom alal yi. saa boo xamee ne soxla nañ ñi nga xam ne ñoo aajewoo soxla nañ nga amub junni sa junni booba nga mën a dunde juróomi téeméer yi juróom ya ca des fexeel ba génn ca ñaar téeméer mbaa ñett nga jox ko ñi nga xam ne ñoo ko aajewoo te bëgg ku leen dimbali bokk yi lii nuy wax nun ñëpp a tàbbi ci biir amul kenn koo xam ne distingué nañ ko ci ndax ndimbal li moom ak jël sa alal di ko def ci yoonu yàlla amul ku ci yàlla seete yàlla ci boppam moo ci distingué kenn kon du jar ngay bàyyi ba am millions yu bari yoo denc di doog a dimbalee déedéet du jar ngay bàyyi ba am ay milliards yitam doog a mën a dimbalee déedéet li ngay am mu néew mu bari saa bu la biri ne mën nga cee faj say soxla say besoin mu des tuuti as tuut suusa mu as tuut su soosa muy des jël ko delloo ko ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk te nga te mu bari la na le yaa leen foofu te jël ci sa alal def ko xaalis sa loxo nday càmmoñ sax bu mu xam la sa loxo ndeyjoor di joxe suboo boobaa nga jox ko ñi nga xam ne ñoo ko ajowoo waaye itam ñi nga xam ne ñoo jaaxle itam te soxla ku leen dimbale nu góorgóorlu ñoom it ci fexe ba itam bañ a kenn bañ leen a yóbbul ñu bañ a dëkk itam <clears throat> afon ñu bañ a dëkk itam ci tàllal loxo a yeneen tamit kan nee na loxo bii féete kaw moo gën loxo bii féete suuf ki nga xam ne daa féete woo di tàllal rek fu mu toll di tàllal ñu ciy teg ak di ko dimbali loolu moom lu ñu lu mu war a weesu la lu mu war a romb la te jàll ci beneen étape bi mooy fexe ba bokk ci ñuy dimbalee am réew boo ca nekkee te war a bokk ci ñay dimbalee góorgóorlu boo fexe ba bokk ci ñay dimbalee te bañ a boole sa bopp ci ña ña ñu war a dimbale fu ñu toll. am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne fu ñu toll rek dañoo war di féetewoo di tàllal loxo ñu di leen dimbali loolu nag asgor su ne da ko war di moytu te di ko daw ndax dafa bokk ci yi nga xam ne dana tax nit ku la wër ta xeeb la dina nit ku la war ta yab yab la dana tax nit ku la war ku la wëru xebet la. moo tax lu ñu mën a góor góorgóorlu ci wut bañ a xeeb benn liggéey ngir am lu ñuy suturlewoo ba du ñu soxlaal kenn lenn loola bokk yi lu ko waaye jënd jar na ko kon nanu ko bàyyi xel bu baax tomb bu am soloo ngi nii ci weer wi ñu soññee ci bu baax a baax ci ndimbal yi muy bàyyi ko te nun di jëm ci ñépp ñoo xam ne aajawoon nañ ko moo tax ñu taxaw ci tey bu baax a baax ngir bëgg gën cee mën a soññee fàttalante ci ndax li ñuy wax itam xam nañ ni gënuñu leen koo xam waaye itam la yàlla waxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñun ñëpp yonante bi moonu gën gën suñuy baay ak sunu lépp te alquran daf ko wax ne ko fa zakir in na ngay fàttalee ndax fàttaleekat njariñ a ngi ci jataay bi loolu rek la lëm mbokk yi yéen ñi ñu doon seetaan di ñu topp ci seen télévision Futurs Médias jataay koor bi nga xam ne moom lañ leen jagleel di taaru koor lii lañ leen ci indiloon tey ngir fàttalante ci soññante ci wàllu ndimbal ak jàppalante rawatina ci weer wi tedd wi ñu nekk di leen jox beneen ndox daje incha allah ci jataay yii di ñëw incha allahu taala ñu dugg nag ci li ñuy wax talabul mar'ati rida zawjiha ak boole koog li nga xam ne moom mooy birrul walidayni ci biir incha allahu taala ñu jox leen dox daje ci jataay bi di ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu